mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax ñu ngi amaat mbégte rek jàkkaarloo waat ak yéen sur la 7TV la télé qui nous ressemble et di leen wax ne rek euh, fu waay mën ci nekk rek ñu ngi lay nuyu. tey nag euh, dañoo ñëw fii ci Pikine Rue 10 ñëw seet si suñu benn doom bu ñuy wax Omar Thiam Omar Thiam nag euh, suñu doom la boo xam ne lu yéeme moo ko dal ñu ñëw seet si ko ndax wutal ko li nga xam ne rek mooy solution naam nag. Euh, dina jafe lool lool lool ndax euh, sama doom bii ma leen di wax dafa doon koo xam ne rek xale bi dafa juddu te indaalewul làmmiñ euh, juddu te indaalewul làmmiñ liñ ci ti xam mooy làmmiñ bi daal euh, génnul ci gémmiñ bi dafa nekk ci biir ci boli bi euh, naka la demee xamuñu exactement parce que moyen bi ko war a faj wala moyen bi war a xool loolu yëpp euh, amuñu ko tamit xol bi doon xol boo xam ne dafa ngande maanaam cœur bi xolu mag la yor au de xol boo xam ne mooy correspondre ak âge am amee li nga xam ne mooy infection pulmonaire li mu yor ci ay jàngoro bëri lool lool lool am na trois ans et quelques yaayam la ñu toogal laata loolu dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo daal di ñuy gën a leeral ci li nga xam ne rek moo dal suñu doom bi di lu yéeme euh, di mbiru yàlla nag waaye nag sañ nga xam ne rek mooy ndimbal pour lépp luy solution buñ ko mën a indil rek ñu daal di ko koy indil <coughs> yaayam muy Ndeye Toro Thiam euh, ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, soxna si nuyu nañ la ma bàyyi la nga waxaat tur beeg sant bi mu gën a leer maa ngi fay man day Coro Mbaye laa tudd. Ndeye Coro Mbaye. Ndeye Coro laa tudd. Mm-hmm. Omar man maay yaayam dafa juddu ak handicap. Mm-hmm. handicap bi mooy bu doon dafa juddu amul tànk wala amul loxo dinaa ko mën a maîtriser ndax ñu mel noonu bëri na. Mm-hmm. waaye nga jur sa doom amul làmmiñ. loolu dafa metti nga mu war a toll ci lekk mënul lekk dara. man mi yaayam pour ma lekk sax léegi dama am problème ndax du ma bëgg a lekk mu may xool. damay obligé bu ma dee lekk damay nëbbatu wala moom bu yeewoo di ma xool lu ma doon lekk dama koy bàyyi. Mm. ndax sama xol moo ko du lekk. Mm-hmm. noonu nag noonu la judduwaale muy loo xam ne lu mu metti la. fan la juddoo. Omar Nouakchott la juddoo ndax damaa demoon waaw. Mm-hmm. damaa nekkoon Mourtani man ak sama borom kër di fa liggéey bu may liggéey na maa ngi doon liggéey restaurant yàlla tamit dimbali woon ma ci loolu waaye dipp bu juddoo ba tey lépp lu ma amoon ñàkk naa ko. Mm. ba pare tamit bu mu juddoo Murtani dafa juddu ba ma indi ko ci kër gi lépp gisuma feebar bi bi ma ko indee ci kër gi fanaan naa fekk moom bu bët set nàmpul bi ma xëyee troisième jour bi ci laa ko yóbbu hôpital man leen kii démb ba tey nàmpul ko man lu mu juddu dafa sonn moo tax mënul nàmp ñu daal ne moom sax yaram bi dafa changé ndax yaram bi mi ngi commencé di jaune ci la ma bindalee ordonnance benn këyit dama yóbbu ko mairie enfant hôpital bi ma ko yóbboon Mourtane noonu la tudd. Hmm. bi ma ko yóbboo foofu ñu dugal ko ci crèche bi am na fa 3 mois. 3 mois def na ko ci crèche. def na ci crèche bi mairie hmm. enfant. Hmm. waaye lu mu def trois mois yëpp man ma xam tamit amul làmmiñ su ma demee nampali ko moom du nàmp xale yi nekk foofu yëpp dañuy nàmp waaye moom su ma ñëwee man moom du nàmp. ci laa fekk ñoom ñu jënd ko na ma léegi bàyyi ko muy nàmp ci biberon bi ñoom xamuñu ko. waaye docteur bi moo xëy si mu ne ma bébé yi nekk fii yëpp dañuy jooy waaye yow sa doom bi du jooy bu yeewoo day tëdd rek boo demul xool ko sax doo ko jox mu lekk. fekk day yeew bu yàgg léegi nag ci la chef bi ñëw mu ne ko loolu kon normalut dama koy defar rajo scanner buñ koy defar rajo bi ci lañ gis ne làmmiñ bi ñëwut. mais attends man jot temps ñuy soog a def scanner boobu. scanner bi ma amee 6 mois lañ ko def. juddu na ba am mois. ndax ñoom ñu ngi doon faj rek yaram bu jaune bi xam ne maanaam xale bi amul làmmiñ yow mosoo ko seetlu. man xale bi jour bi ma xamee ne amul làmmiñ ba suba gi lan ma génn hôpital ñu ne ma bul fay dara ndax yow mun naa. mun def na fa combien de def na fa 6 mois. 6 mois ñu soog a xam ne bi génnul 6 mois doog a xam ne làmmiñ bi génnul te doon ko doon defa scanner. ak photo photo dënn bi. waaw loolu lañ ko doon defal ñu ne ma. mais pendant tout temps bu mu nekk kon lan lañ ko doon ñoom ñi ngi doon faj yaram bu jaune bi ak pere prématuré bi dafa tuuti bi mu juddoo ñu ne matul. te dafa mel ne dafa am malformation. dafa am malformation mongolaise la. Mhm. dafa am formation mongol waaye ñi même ñoom waxuñu ma ne dafa am formation mongol lépp Sénégal laa ko xamee. Oh, oh, oh. lépp Sénégal laa ko xamee lu ma ci xam ni yëpp Sénégal laa ko xamee waaye làmmiñ bi moom Murtani laa gisee ne ñëwut bi ma gisee ñëwut nag moom ci la ma sage-femme bi ne ma kon yow da ngay ñibbi Sénégal. ndax Sénégal ñun sax dañuy dem foofu di jàng kon boo bëggee faj fii sa doom bi faj bu war doo ko ci am demal nga ñibbi. kon xale bi buñ xam mën nañ ko wallaahi am naa yaakaar lool ne buñ ko teeloon maanaam dem na ba mois. 6 mois ne xale bi judduwaale woon. làmmiñ déedéet ñoom ñàkk a jooy bi rek moo leen ko wax ndax bu yeewoo lu mu yàgg yàgg yàgg bu yeewoo même bu yeewoo ci suba ñoom duñ xam ne yeewu na heure yi nuy joxe lekk yi ci la ñuy dem fekk ko mu yeewu ñu ne ma yow sa doom bi mosuñu ko dégg mu jooy xale yi nekk fi yëpp dañuy jooy waaye moom du jooy man leen ah man it de man musuma dégg mu jooy bu yeewaan day yëngal loxo bi rek ma xam ni kii yeewu na léegi nag ci la docteur bu mag bi ñëw mu ne leen lii normalut léegi nañ ko dem defal bilan ñu defal ko scanner bu ñu ko rajo scanner lan gis ne làmmiñ bi ñëwut. mais mais lay lay ah? euh, bés boobu naka la mu nekk bis bu metti ci man ndax man musuma gis nit ku dudd te amoo làmmiñ gis naa lépp ci nit nit judd na amul bët. ñii judd amuñu nopp ñuy judd amuñu tànk waaye ñu wax la sa doom amul làmmiñ te làmmiñ mooy nit ndax boo amul làmmiñ doo lekk doo naan. pendant tout ce mois yi lu mu doon lu mu meew rek. ah meew kese lay lay naan. te meew bi bu ko dee nàmp sax bu tëdd lépp ci bakken yi lay génnewaat. day tëdd ñu soog ko mën a jox. day loo ko jox day tëdd. boo ko toogalee loo ko jox day abaat ci bakken yi même bu dee ceeb da ngay gis pepp yi di tëb di génn. loo ko mën a jox ci bakkan yi lay aw. Mhm. moo tax médecin yi na ma arrêté di ko jox ceeb ndax mënu ko lekk. Euh, kon fi ne nii euh, bi nga ñëwee fii ci nga xam ne euh, maanaam xol bi dafa rëy. fii laa ko xamee waa mhm. bi ma ñëwee fii laa ko yóbbu Fann bi ma koy yóbboo Fann ñoom ñoo ko defal rajo ci cardiologue bi ma fay juróomi junni. Mhm. ñoom ñoo ma kër bi dafa mag. ñoo ni ma dafa mag ma demaat tamit fële. hôpital Roi Baudouin ñooñu tamit même chose la doon ma wax kër bi dafa mag. Hmm. waaw sa yaay naka la ko dundee moom bi nga ñëwee. muy lu naqari lu metti sama yaay lu metti ndax dama ko daan jox. Hmm. su ma ñëwee dama ko daan jox lu ma war a joxe ma joxe ko. ma ñëw moom mu ëlbati ko di wuti lu ma jox. te hmm. sësul ci kenn looloo ci gën a metti fu mu xam nag dugg na fa man. nit ñi ñëpp jàppale nañ ma. koñ bi ma dëkk amul ku ma ci seetaan. am na benn xale bu jigéen boo xam ne fii ñoo jàkkaarloo koñ bu mu njëkkee gis gémmiñu Omar bi Amérique la nekkoon waaye dematut daa dem lijjanti ci nekk États-Unis ba jox ma fukki junni ak juróom benn kooku sax ma ma gën a doole ma am lu ma ko fajee <laughs> su ma rombee sëñ lu mu jox ma besamé na ma jëndal ko meew te bu jeexee nga ñëw laaj ma waaye man maa mënul laaj <laughs> <laughs> su ma sañoon man bu ma ñëwee damay joxe waaye kenn du ma jox. Euh, yaa ko doon jox euh, tey jii moom mooy wëlbatiku di la. jox muy loo xam ne metti na ci yow. wallaay metti na ci man la gënal waaye suñu borom rek ndax moom boppam loo wax mu ne yàlla ñu ko teg ñu dem xool ko suñu yaay Fatou Faye daal de ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission trop boo gisee mu metti na mooy sama borom kër lañ ko tuddee ma bëgg nag mu dund lool gudd fan. waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam xëy na nii la ko yàlla dogalee mu juddu nekk malformation boo xamante ne bii ni mësuñu koo gis daal ñun daal daf na jaaxal ndax mësuñu koo gis ndax nit ku judduwaalewul làmmiñ koo gis ñu ngi koy soog a gis ca tamit docteur yi nee nañ mësuñu koo gis ñu ngi koy soog a gis ba pare problème mu lekk bi ku ma ci gën a jaaxal li tax may xalaat gudd fan bi ak dund bi yàlla rek nag moo ko moom man moom ma ko ndax bakkan ngi ci loxoy doomu aadama yàlla waaye comme nii muy tooge nii mënut a lekk ceeb mun a lekk dara lu nit ñiy lekk moom a ci jaaxal moom a ci metti tamit meew kese meew mi ci biiron bi lañ koy def dañ koy tëral mu soog koy mën a nàmp ndox mi bu ko dee naan encore ci biberon bi lañ koy def dañ koy tëral muy soog a naan ndox mi te bu kiiyee ba suur bu jógee li ci des lépp ci bakkan yi lay jaar génn bu feebaree tamit buñ ko dee nàmpal ci bakkan yi lay jaar di génn dañ ko yóbbu hôpital Fann ba hôpital Fann ne comme que sonn ngeen léegi dañ koy yebal fii Loa Badome ngeen di ko fa yóbbu Loa Badome bu ko feebar bi daaneele problème mu kër bi bu ko daaneele ndax nee kër bi dafa rëy waaw nee kër bi moo ëpp aasam daal dafa rëy hmm. ba pare nee dafa yore problème mu cardiaque mu ko daaneelee buñ ko yóbboo lu mu guddi guddi dañuy jël taxi yóbbu ko lu war ma demee buñ demee dañ koy defal ay séance yenn saa yi ñu defal ko ñett yenn saa yi ñu defal ko ñeent mën nañ ko ko defal léegi ñu génn ci guddi gi même feebar bi daaneelaat ko ñu demaat wala ci bis bi liñ amoon lépp jeex na man nag soxlawuma dara li ma soxla mooy problème mu kër bi nu wax ne dafa rëy ak karijaat bi ku ma ci dimbali rek laa soxla soxlawuma dudul loolu ak làmmiñ bi làmmiñ bi ci biir put bi la nekk xool nan ko nee làmmiñ bi mu ngi ci biir put bi ca bu demee ba muy yàgg bu rëyee mën na koo lor maanaam yenn saa yi feebar bi da ko daaneel du nu am lu ko fajee dañuy obligé dindi suñu alal dem jaayi ko ñëw fajaku ko liñ yoroon yépp jeex na yaayam néeg bii ci la dëkk dafa amoon lal armo am almuwaar lépp jaay nañ ko ba mu jeex tàkk barki démb bi ko feebar bi daanee tele bi laa ko ni nan ko wekk jaay ko ndax loolu rek lan desay teg nga baa li ma wax ba benn jullitu yàlla moonu bëgg mujj dimbali muy kii nu dendal jàkkaar loolu kër nee moonu mujj dimbale woote ay mbokkam ñu dimbale ñu ba nu am juróom-ñaari junni ci lan koy soog a yóbbu hôpital bi nu demee sax matul yenn ordonnance yaa ngi nii jënduñu ko parce que amatuñ Sénégal fii dafa metti amatuñ faj nanu nag def ba mu juddoo ba tey nag ñetti at ak genn mu suñu woote ndimbal ñu ngi koy soog a wootee tey fi ñu yaakaar kenn fi ki leen fi indi nii bëggul sax ñu tudd turam mais daf nu gis rek ñu sonn mu yërëm nu lool nag daan ne bu ngeen bëggee ndimbal waaye ñun lii daanaka am na ñetti at ñuy bësanteeg suñu xol combat ba metti bi mooy bi koy yaayam amee nu waak soot muy fajo mënuma dem mënuma gis yaayam ca yaayam nekkul ak kenn ku dul borom kër ak ay naar ba bis bi mu ma woowee ni ma yaay sama doom ji ma ne ah, ma li ma ci am daf maa bett lan mu ni ma amul làmmiñ bu suur boobu kër gi kenn yaru ndax boo feebar mu suñu ko dégg mu foto ko yónnee ma ko guddi googu damaa fanaanee julli di ñaan ba bët set ni bu fekkee ni lii natt la bu dal ci sama kaw doom yi te musuma teg lu ma naqari nag yàlla na ko yàlla teggi jërëjëf euh, maman euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, li mu wax daw na yaram moom amaana lépp lépp lépp lépp lépp mën na ko muñ mais ñàkk lekk bi moo ko jaaxal ñàkk lekk bi nee na moo tax amul benn yaakaar ci xale bi yenn saa yi mu ne la sa doom ji bu ci am benn yaakaar nee na metti na day metti bi mu la koy wax waaye da di mag te xam li ci ne ci ñàkk lekk moo tax mu la koy wax nan ngay dundee loolu. dëgg la man mii di yaayam sax lool moo ma gën a naqari. Mm-hmm. ndax man ma lekk di bàyyi sama doom. lu ma togg lu mu neex neex bala ma koo lekk day ne law ndax su may lekk daf may xool. mënoo toog di lekk mu lay xool. su ma lekk daf may xool te day bëgg te bu ma ko joxee su ma ko joxoon tey suba ba suba ci suba ci gémmiñ bi laa koy fekk du ko warax muy lu metti ndax su ma sañoon day mel ni sama doom yëpp di lekk. Mm-hmm. nga togg sa yàpp togg ko ba mu neex sa doom tiim la nga lekk bàyyi ko yow bëgg nga ko man bëgguma loolu sa sañoon lu may lekk sama doom da ciy lekk xam ne daf maa def comme zaaru dof damay tëdd sama yaay daf may woo ba mu ne ma xale bi bu ci def sa yaakaar day lekk mooy nit te lekk ku lekkul nooy dundee waaye man mi ko jur mënu toog di xaar dee dama koy faj ba ma yàlla may ma jël su ma sañoon nag man bëgguma dara bu ma kenn jox dara man na su doom wér rek loolu laa bëgg bëgguma xaalis na wér ma dem liggéey ndax man li may am man maa koy liggéey waaye mënu ma koo jox sama doom wér rek laa bëgg man ma dem liggéey ku ma ciy dimbali tamit dimbali ma mu weer bëgguma ci dara na wér man ma mën a dem liggéey ndax man ñaanuma yàlla toog di ñaan masa métti na gis naa ni ngay dundeek moom muy sa doomu xol euh, muy xale boo xam ne ku sori la ci yow Euh, ma bàyyi la rek nga wax ñu bu feebaree naka lay demee ak yow yenn saay doo am paas yenn saay doo ko fajee yenn saay nga dem ba hôpital am fit yóbbu ko te yoroo xaalis naka ngay dundee loolu. waa mës naa ko def mës naa ko yóbbu Abbas Ndaw ma ko yóbbu baas Ndaw ci mbedd mi laa fanaan. keroog képp ku yeewu ci guddi gi rek gis nga ma fii koñ bi boo génnoon ñoom ñëpp romb nañ ma waaye boo ko yóbbu yoruma dara bi ma demee ñu bind ma de sang. vingt mille francs ma lu ma ko defee jour ba maa ngi fa dajeeg benn xale bu góor bu def soog moo ma may moo ma may quinze mille waaye teewul bi ma nee docteur bi ndax ma bàyyi fi sama carte dant ak quinze mille yi dafa bañ mujj ma def analyse bi dama ko dem rek mu téye ko defoo ko max ñetti science ma ñetti science max masque lan lañ koy oxygène wala. oxygène lan koy defal ñetti science lay jël ndax moom day jékki-jékki làmmiñ bi day fees gémmiñ bi ci put bi danga koy gis muy mel ni luy crise léegi nag bu boobaa ñoom ñoo koy. làmmiñ bi li mu génnul ci gémmiñ bi dañ laa ne mi ngi put bi. docteur bi ko faj nee na ma làmmiñ bi fii lay màggee te bu màggee fii dootul ah? Ah, wax na ma ko roi Badoé fii lan ma ko waxee ñu ne ma làmmiñ day màgg looy màgg sa làmmiñ day màgg te làmmiñ bi génnul fii la ne moo tax xale boo gisee fii dafa commencé di yaatu. mu ne ma fii lay màggee te am na nu muy toll dootul nooyi loolu wax nañ ma ko ma xam léegi fi mu ne làmmiñ bi foog ñu opéré ko. foog foog ñu opéré ko xam nga man du ma docteur ñoom rek ñoo ma ci mën a wax ne ma lii lañ ciy def. Mhm. waaye ñoom sax su ma demee dañuy mel ni ku jaaxle duñ ma mën a wax benn solution. am na nag ndax bokkul ci li nga xam ne dinañ koy faral di gis. déedéet ñoom nee nañ mosuñu ko gis. ñu ne mosuñu ko gis déedéet. noacha dañ la ne mosuñu ñoom mosuñu ko ñoom dan ma dàq. ñoom dan ma dàq ne ma demal ñibbi lii ñun mosuñu koo gis mënuñu koo faj loolu lan ma wax. léegi nii naka naka naka nga ah, gérer ko gérer bu métti rek. gérer ko gérer bu métti su ma sañoon wax dëgg yàlla day lekk di naan leneen lu ko yàlla teg ma nangu. handicap bu mu mënoon a am mën naa koo nangu. Mhm. mongol beeg yëpp garaawul ndax mongol yi bari nañ bu ko yàlla defee mongol noonu la ko yàlla dogalee su lafañoon ma jël ndax lafañ yi moom gënu leen. su mhm. gumbaa ma jël. Mhm. waaye ngay tiim sa doom du lekk dara. yow loolu bu na nee moom dina gudd fan sax waroo koo mën a gëm ndax moom mënul di nàmp meew ba toll ni continuer di nàmp meew viam yëpp mu ko def ci meew loolu mënul nekk mhm. ndox sax mënu ko jàllale ndox lu ma koy may ci biberon bi laa koy def te lu si nekk bu tëddul du ko naan lu mu toog rek du ko lekk ñu dem xooli témoignage euh, doy na waa trop ñu dem xooli kii nga xam ne euh, mi ngi tudd ba Badara mbay ñu gën ko xam ci turu Ndion muy koo xam ne rek artiste la macha allah nekk ci milieu bi di ci liggéey liggéey bu rafet Euh, naam nag euh, balaa ñoo am lii son nañ trop ci moom ndax yàgg na ko dund en silence te benn naataangoom ci wàllu artistes yi xamul tey nag euh, mu bëggoon ku ko ci jàppale ñu bàyyi ko mu daal di lancer appel mbokkam yi te daal dellusiwaat léegi ci waxtaan bi sur la 7TV. am yàlla dogalam. noonu moom daal amal suñ suñ jabaate ba ah, mu doon feebar boo xam feebar buñ tiis la mais xam nga nit moom doom aadama Sénégal la nekk. Sénégal waxee fi xam nga rek ñaan dimbal ak yooyu noonu nii ça peut démarrer am mbokk yooyu mën a dimbali sax dimbali fi moom dama sa moyen bopp rek yaa moo jur lépp moo tani man maa ko woo sa institution ñëwal ndax kii bu fa nekkee quoi poussière beeg yooyu noonu xam moo tani xam affaire yi désert beeg yooyu noonu yooyu noonu surtout maa ko am ay problème poumon wala ay noyyi yooyu noonu ba mu commencé tane quoi waaw ça fait deux dañ dañi ñun ñëpp noonu dañ dañi sama yaay ñëpp na am na koy dimbali muy kii xam nga mais dimbal daal moom mooy xam nga xam nga ko amagul moom pour na dimbali ni day métti waaw ko amagul moom pour na dimbali ni day métti quoi waaw mais noonu bàyyi yëpp si loxoy yàlla moom ban demee hôpital ne moom dafa am xol bi moo yaatu maanaam xol bi moom xol xale bu mu war a yor yor xol xale xolu mag la yor quoi boo xam dafa yaatu dem saa yoo demee ne day génne benn feebar boo xam sax kenn du xam nu mu demee ba mu mujjee dem dafa ñëw yaayam na ma kiis ka diagramme ma ko sa ñooñ kon vérifié na bu baax mu génne ma test résultat yooyu noonu na ma xool bi en plus làmmiñ bi dafa nekk si biir léegi nag bu mu génn léegi moom meew la mën a naan bu nàmp da wax damay nàmp bu kii di mënul wax dara moom day jàpp jumba xam nu xam ne kii dafa bëgg a nàmp ay signe lay def quoi nu xam ne kii dafa bëgg a bu nàmp day toog day tëdd mënul toog nàmp am na si lu wax dara daal dogal yàlla la mais ñuy ñaan ñëpp ñoo xam ni war nañ si mën a jàpp du ñëw jàpp si. waaw non dëgg la dëgg la ah, damay naa sa affaire Fallou Ndiaye moom jàpp na si ndax moom saa yu kiiwee sa naan yaayam. gars yi lu manqué la ñëwoon ma maa si ma maa ko si def mbay sama xarit moom sama mag sama lépp mbay ñu ñaar nooy liggéeyandoo mu nekk moom tam ni ku baax mais Pikine am na ñeneen ñoo xam noo fi gën mu nekk Pokola Bade moom sama champion chaque jour fi lay ñëw toog mooy nekk Ama Isaaxa Diop euh, monsieur le maire Amadou du ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam sama xarit la nekk si diaspora bi xam naa moo gisee sax kii moom mooy loolu noonu waaw mais dama bëgg nu gën si jàppale ñoom ñëpp muy dërëm muy ñaar dërëm nu dafa opération ndax kii doy nii xam nga tànk la te xool bu amu amul raam yi mënul wax ne waaw waaw ay Ricky Diane sama gaan baala te nekk Japon ñu bari ñoo xam ne noonu fa Kumba Fall sama jigéen te mu nekk Italie saa yu ñing gars yi Mama Ndiaye ñoom ñëpp koo xam ne képp koo xam ne yow war na si mën a jàpp rek du ma du ma lim parce que juum ñu nekk si diaspora bi yëpp doon bari xaw ma nekk nag Sénégal koo xam ne xàmmee na ma rek gis na ma man maa ñaan yàlla jëm maam Serap Fall na ñëw jàpp si teg sa loxo ndax defaloo ma ko ma ñaanu ma la mais pour jarbaat bi la sama tuut tànk bi xam nga yàlla jàpp loxo yàlla génne ko làmmiñ beeg affaire yooyu ko quoi ndax xale moom làmmiñ mooy rek boo amul làmmiñ doo wax doo mën a def dara moom moom moom solennellement di racé na après Pape Sarr doomu Pikine Pape Sarr Pape Sarr moom ñëpp xam sama grand la waaw te moom social moom xam nañ ko ñu bari Pikine ñëw woo naa ko sax mais waxuma ko loolu dañ doon di waxtaan si leneen leneen leneen mais dama bëgg moom mu gën si jàpp ñëw jël initiative boppam xam nga am moom moom mooy foog na opéré bi foog na opéré ko génne xol xol bi da nga koy opéré génne waaye làmmiñ bi mm-hmm. waaw foog na opéré ko génne làmmiñ bi ak xol bi mm-hmm. waaw loolu daal man bëgg naa ñëpp ñëw jàpp si moom non parce que kii kii yéen trois heures du matin une heure du matin yaayam dem na hôpital sax ba def na fa quatre jours yoo xam ne mooy yaayam yoo xam ñoom ñaar dañuy toog di fanaan si ban hôpital yi boo demee fii Sénégal boo amul xaalis dana naan dama toog ni dama toog ni parce que des fois ay médecins yi am yéen mën a sax nañu tomber na la kaay ñëw ñëw toog xam si mais durant trois ans yi sama yaay du nelaw man du ma nelaw ndax saa yu ñu jugee ma maa fiy góor ñoom bu ñu jugee ma maa jug ànd ak ñoom te xam nga boo neke si yenn circonstances yi xam nga lu bari doo ko mën a bàyyi suñu kër premièrement gis nañu mel xam nga dem naan maa dem fanaan hôpital bàyyi fa ay xale yu ndaw ak samay jarbaat ak samay yooyu noonu loolu nekk quoi mais papa moom yàllaa ko def nii ama si métti na du nelaw du kii du du def dara loo xam nga suñ coobare lay doon quoi bu yaayam jugee day nu jug mu ne wéer nii léegi nii même pas deux heures temps mu tëdd feebar nga gis ko du rek du def dara des fois mu dem hôpital gars yi monté ko masque pour mu mun a noyyiwaat ñu jëw ko def ko ay traitement te garab yi moo gën a cher Ismaïla Coumba Yacine waaw garab yi boo ñëwee naan dama jënd yëpp nga dem defi test noonu dama defiwaat beneen analyse wala test noonu dama defiwaat te munoo fay chaque instant sept mille dix mille douze mille garab loolu xam nga te te meew sa day kii waaw te loolu dafa métti chaque semaine na jënd meew te moom booy la parce que dafa jënd meew teg sax mu ñëw këpp meew bi mhm. xam nga doo si doo si mun wax daal meew trois mille sept sa chaque kii na koy ki loolu dafa ëpp quoi waaw chaque deux jours loolu xam nga boo jàppale daal mu jël man daal man ñaan yàlla waaw ñëpp artistes yi ni ma mos a liggéey ñoom ñëpp képp koo xam ne yow yaa may gis caméra bi te mosoo maa xamee lii maanaam ñaan ñëw jàpp si te yàlla rek tax mhm. ñëw teg booy bi loxo nga xam ne boo jàppale jàppale woo ma jàppale woo kenn yàlla nay jàppale na xale moomin la ndax suñ saari moo ne moom moom xale yi moom ñii ma maa leen téye sam bopp waaw boo demee bu gisatoo jàppal ma xale yu ndaw yi man fa laa ko teg moo tax nu si wasaax. jërëjëf euh, macha allah kon ni ngeen ko déggee rek euh, ñëpp euh, sénégalais yi nekk ci réew mi ak bitim réew bàyyiwul kenn mi ngi lancé appel ñëpp mbokk artiste am yëpp pour ñu jàppale jarbaatam bi ndax nee na moom bu dee moom rek yàgg na nekk ci aar bi di ci bay waaram te nag laajul kenn waaye xale bi la ñeewant ba tax na ku ko ci mën a jàppale mu jël tey jii bu xale bi crisé lu ko mun ci dal moom mooy góor ci kër gi moom mooy jug yéen a bokk ndey ak loo ciy wax. jox na ma bataay lu mu am jox na ma ko bu tëggi jee bu ñëwee ci ëtt bi la may fekk ma yor sama doom tey it ku yàgg bañ lii la mm-hmm. boo waxee mu na gor day dem ak sagam billaahi nday nañ ko faj rek lu nu am wallaay ñàkk pexe ñi feeñ ci tele bi neexu leen waaw waaye ñàkk pexe moo tax mu mm, nangu li pexe xale bi tey euh, ñu ngi ko war a opéré nañ ko dégg léegi ci témoignage mi ngi war a laaj euh, li nga xam ne rek mooy xol bi màgg trois million cinq cent lay laaj pour opération yenn saa yi di nga bañ mee doo mën. doo mën parce que li lay génn loo télé ñàkk pexe lay doon bu dee boo génnee télé mu wër da koy def. kon tey jii njoon moomu euh, kenn du ko mere ci génn télé pour laaj social. kenn du ko ci bañ na ko ba tàyyi. Mhm. bañ na ko ba tàyyi. su ma mhm. waxee mu ne ma nañ dem ak suñu sac. Mhm. papaam bañ na ko ba sonn. papaam même ñaar dërëm même ñaar dërëm bu ko fanaanoo bu xëyee daf ma koy jox. papaam bu amee dërëm daf ma ko jox waaye am-am bi bëriwut. mi ngi Mauritanie mi ngi Mauritanie. fa lay liggéey la rek lay defar. waaye am am parce que yaa ngi si sànq sànq si suuf nga ne app euh, na ko ba semaine bu yorul du la woo. wallaahi ba ma ko gëj dégg sax dafa yàgg fan yi bi ma ko wooyee man ko yow man gëj naa laa dégg mu ne man day man bu ma yorul du ma la woo ndax xam naa li ngay dund danga nga yor ku feebar su ma la wooyee rek maa bëgg na la def dox jox naa la nangam waaye di la woo wax kase loolu du ma ko def. day dem ba fàtte boppam. day dem ba fàtte boppam. ma mhm. gën a jeex naka la ko dundee papam fële ca Mauritanie biñ ko nee xale bi judduwaalewul ak làmmiñ papaam kañ biñ ko ko waxee lu ko nakkari la ci am lu ko naqari la ci am papaam dafa bëgg xale bi ndax xale bi sunu doom bu góor la xale sunu doom bu góor la su ma sañoon dafay màgg yor ma yor papaam mhm. waaye duma ko gis si bii anam mhm. moo tax nag maa ngi ñaan képp koo xam ne mën na ma ci dimbali rek te yàlla tax mu dimbali la waaw mu dimbali ma. Mhm. Euh, bi nga demee fële euh, ci fi nga xam ne rek euh, mooy hôpital jour boobu dafa fanaan ñu defal ko ay oxygène liñ koy defaral bëri na. kii lu ne lam koy defal su ma demee dañ koy dëpp max du ma fa am benn fan du ma fa am ñaari fan par des fois ma am fa weer par des fois ma am fa deux mois. hôpital waaw dama fay yàgg. hôpital bu ma dem fenn rek laa dem am fa une semaine génn muy Abbas Ndaw Abbas Ndaw laa dem am fa une semaine génn. parce que sama manque de moyen moo tax ma génn man maa obligé na leen damay génn waaye bi may génn du dafa wér wala ñoom ñoo ko génne man maa leen wax ne damaa bëgg a génn xamuñu tamit na yoruma xaas ndax ka ma fa fekk lu mu mën ci lu baax defal na ma ko bari na garab yoo xam ne sax moom daf ma ko may mm-hmm. waaw da ko am ku ko amoon foofu mu ne ma garaaw di am na fi dama jënd yii mm-hmm. yenn saa nga tas ak ñenn ñu ñu bëri yërmande waaw euh, lan nga ñuy wax ci jour yi gën a metti yi nga dund ak moom Nouakchott ak fii Nouakchott dina metti weet nga gisoo ndey gisoo bàyyi borom kër nga gis ak sa sër waaw dëkkoo ci dëkk bi lijjanti fa lu bëri du yomb naka nga dundee moment yooyu moment yooyu dafa metti ci man ñu génnee leen location waa waaye moment yooyu bi muy doog a juddu sax tane na ndax dencoon naa dara mhm. ci laa ko faj ba mu jeex bi mu jeexee nag tombé xale bi am na trois mois crèche bu mu amee deux mois rek la jafe-jafe yi commencé ñëw ci man ndax borom kër gi ma luye woon nga xam ne bi ma demee Mourtani def naa fa juróomi at ci biir kër googu moom a njëkk a xamal ne ma kër gi banque moo ma lebal lu ma ko tabaxee te banque xamul ku feebar. Hmm. comme te da yor ku feebar da may fay wala nga génn. dañuy dem xool yi eh, sa sœur bi ñu fa nekkoon amaana loolu dina ci gën a mën a àdd moom it am na nu mu ko dundee eh, ñu dem xool ko nu mu tuddati. Daba Mbaye Daba Mbaye ñu dem xool ko daal dellusiwaat léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du Yéeme na. bu mu jigéen noonu chef ba tey dañ ñoo dafa am problème mu infection de poumon bu kiiwee bu am problème mu xol tamit. xol bi dañ ni dafa dafa mag. mel ni début de cardiaque la am. léegi bu nàmpee ba tëdd. day fatt mu génn ci bakkan yi léegi bu tëddee bu amee 30 minutes rek yow da nga ko yëkkati boo ko yëkkatiwul bu fattee day génn si bakkan yi en plus amul làmmiñ mënul lekk mënul moom naa nàmp rek la mën du naan sax ndox meew lay nàmp te mënul toog nàmp te am na trois ans mënul toog nàmp léegi bañ demee fan ñu bindaloon ñu ay kayit ñu dem fan bañ demee fan ñu daan ñu yebal chirurgie plastique bañ ñu yebalee chirurgie plastique léegi waa chirurgie plastique nii pour ñu faj Omar il faut ñu am 3 millions 500 parce que dañoo war a wàññi xol bi en plus làmmiñ bi génnul fatt fii dañ koo war a dindi mm-hmm. loolu lañ ñu wax. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ci loolu lañ leen bindaloon devis bu 3 millions si loolu 3 boobu pour euh, maanaam chirurgie plastique bi kese. Mm. pour chirurgie plastique bi kese la euh, bokkul ak problème cardiaque pour chirurgie plastique bi kese la pour ñu wàññi mën a opérer li nekk fii làmmiñ bi mën a génn. ndax ñu ne ñu expliqué ñu ñu làmmiñ bi lan moo tax bu tëddee bu amee 30 minutes dañ ko war a yëkkati làmmiñ bi dafa fatt fii lu muy màgg làmmiñ bi day gën a màgg. loolu la ñu expliqué woo. waaw moo tax chirurgie plastique ñu waxoon ñu ñu dem fa papier nii sax mi ngi chirurgie plastique. parce que yaayam moo fi nekkoon di ñuy jàppale. moo nekkoon suñu loxo moo nekkoon suñu lépp. waaw man di judd ndax ba ma nekkee fii nekk si ay situation moom laa fekk ji woon mu ratani mu may jàppale léegi après Omar di judd Omar juddu bare activité mi yëpp yëpp yëpp yëpp mënatul liggéey mënatul def taara te moo doon liggéey di ñu jàppaleeg yëpp moo tax affaire bi metti na tamit ndax bu Omar feebaree ñu ñëpp dañuy jaaxle dañuy àndandoo moom hôpital dem toog fa di jooy dañoo dem ba hôpital yëpp ñu xàmmee mu de si day principal ba roi ba ñëpp ñu xàmmee léegi bu ñu demetee sax dootuñu rangati comme ni ñu doon rangee bu demee dañ naa Omar ak yaayam ak tantam ñëw ne. metti woon na parce que Omar ba mu dafa toog benn une semaine de juddu ñu indi ko sa kër ga docteur Mauritanie xamuñu woon daf feebar mu toog benn une semaine nanguwul ma nàmp mu dem ba yaram bi di jaune di changer couleur après. ñun seetlu woon ni amul làmp amul dara amul làmmiñ bu ko yaayam joxee ween bi rek da koy rejeté mu dem ba yaram bi di changé couleur di jaune ñu yaakaar dafa amee feebaru jaune ñu yóbbu ko fa bañ ko fa yóbbu après si la médecin chef bu mag bi ñëwee daal di xool daal ne kii de am na lu sikk si moom après ñu yóbbu ko crèche mais judd na ba am une semaine muy dund ak métti nangul nàmp nangul def dara bu ko yaayam joxee weenam rek mu delloo ko ko. moment yooyu ba Omar juddoo ba am woon njéenteem sax. man maa ngi doon liggéey benn restaurant bu nekk foofu serveuse pare si la yaayam daanoo xëm ba Omar nangul nàmp yaram bi di jaune yaayam daanu xëm papam daal di may woo téléphone mooy jëkkëru yaayam bi ma fa nekkal woo ma téléphone ba ñëwee ba ma ñëwee fekk foofu Omar ak Ndey pour man ñoom ñaa ñëpp dee nañ ak ma ñëw fekk Omar ñu yóbbu ko hôpital dugal ko ci verre yi pour man dee na boobu jooy naa nag parce que man moom dong dong laa fa amoon man may xalaat ne kii bu deewee fii ak loolu lan laay wax sama yaay ak doomam ji. Mm-hmm. ak ba mu ëmbee ni mu ci sonnee woon. Mm-hmm. moment yooyu metti woon na trop trop trop si ñun. ndax dañ doon toog ba ndax boobu moment yooyu moom moo doon liggéey jëkkëram liggéeyam demeewul noonu. moo doon liggéey di def si kër gi di fay appartement bi mu dëkk ak yëpp ñu toog tamit ay deux mois fayuñu luyaas borom luyaas bi génne ñu finalement mu metti si ñun. ñu dem ba si lim génnee ñëw Sénégal ñibbi si fii sama ya borom maire bi ñu liyee woon dañuy moom si lim ñu liyee banque la defoon prêt si la ko yaakaar kon chaque cinq jours dañ koy fay mais kër googu dëkk nañ fa trois ans amuñ benn problème chaque cinq jours ñu fay ko chaque cinq jours ñu euh, chaque la cinq ñu fay ko chaque la cinq ñu fay ko léegi bañ toogee deux mois après sama jëkkër mag bi dem expliqué ko ñu xamoon na dajale lu toll ni si tuut maa ngi moom fekk kii mi ngi ëmb maa moom ak kii daaw da sama jëkkëru mag bi ak man ñu dajale woon tuut mais liñ dajale woon matu woon deux mois yi matu woon sax benn weer bi léegi borom kër gi rek comme étranger lañ moom mënuñu muñal mu génne ñu si leen demee man ma dem sama kër benn xarit moom mu dem kër benn xaritam ñu dajale ñu dem ambassade ak yooyu ñu ketal ñu après ñu ñibbi. waa di ñaan yàlla rek ku mën a dimbali yaayam te yàlla tax rek mu dimbali ko yaayam xale la soutien de famille la mooy sama taawu yaay. moo ñu yoroon ñu ñëpp ñun dañ daan liggéey as tuut di ko jàppale ku ko mën a dimbali te yàlla tax rek mu dimbali ko. jërëjëf euh, muy Daba Mbaye euh, macha allah moom it euh, muy xale bu am jom ndax ni mu ko waxee leer na yaa ko doon jox mu wëlbatiku foo teg sa tànk pour faj xale bi mu ne la dooma fi bàyyi situation yi ngeen dugg dund Mauritanie ma bàyyi la nga àddu ci. muy situation yi lu métti. Mhm. dem na ba nga xam ne moom bu demee seen restaurant lu mu fa wàccee rek. bu ñëwee day jubal si hôpital bi jox ma ko ndax hôpital bi tamit demoon naa ba nga xam ne su ma xëyee man lu ma fa lekk sax dafa may të. ci hôpital ci hôpital bi te foo nekk ba loo lekk di la të foofu mënatoo faa lijjanti dara muy loo xam ne lu metti su wàccee moom reer bi mu ko jox fi mu doon servir reer boobu la ma indil lu mu fa jëlee ci xaas jox ma doo a dem liggéeyawaat loolu dund naa ko fa. yaa ko fa yóbbu woon di ko jàppale. maa ko fa yóbbu woon ñoom ñëpp. maa ko fa yóbboon pour muy liggéey di ma jàppale ma koy jàppale. mu may mm-hmm. jàppale. Mm-hmm. waaye dem na ba benn maman moom moo may jàppale. Mm-hmm. muy lu metti nag. bi loolu amee après nga ñëw yaa ngi continuer paj mi yaa ngi continuer paj mi mais ba tey jii paj mi mënul avancer ndax xaalis bi amul. yenn analyse yi yenn rajo yi. waaw am na analyse yoo xam ne sax dan ma koy jox du ma ko def am na rajo boo xam ne dan maa waxoon pour deru biir bi moom lañ koy def. Mhm. quinze 15000. ndax lan ñu koy def dérobé bi lu si ne. waaw ndax ne nañ biir bi tamit dafa nooy comme. dafa nooy comme lu am ndox daal. waaye mujj ma ko def ndax aw ma lu ma ko defee. bi ne laatoon nañ ma beneen rojo kër 25000 defuma ko ndax aw ma lu ma ko defee. ndax nit tamit boo dee def dangay def loo mën. mais rajo kër bi jot génn daal mooy xol bi. rajo rajo kër bi njëkk jot a génn mooy bi ma njëkk a def. boobu maa ngi ko defee Dantec. boobu génn moo wane ni boobu fan dan maa wax ne seen machine dafa am problème naa dem Dantec boobu moo génne na kër bi dafa mag def loowaat nañ ma beneen rajo kër waaye defuma ko ndax awma xaalis mhm. ndax li ma def ci rajo ak ay analyse sunu kër gi dafa indone këyit yëpp yàqu Omar saagu këyit la am yu ma jëlee Murtani ak yu ma jëlee fii mhm. waaye bi ndox mi dugg see ci la lépp tooy mhm. am na ay këyit yoo xam ne tamit mu ngi ruwaa ba doy mais fi mu ne nii wax nañ leen ne euh, dañ ko war a defaral euh, opération kër bi. boo xam ne million millions 500 la. loo koy wax nañ ma ko bu yàgg. xanaa ah, bi ñu wax ak léegi mooy li sa sœur bi wax am na un an. am na un dama amul moyen rek waaye bu ma amoon moyen ba tey def naa ko ndax man fii xale bi doo nga ma fi bàyyi. Mhm. xam nga ne ku sañoon doo toog seen kër. soo xëyee loo lekk doo ko am di xool sa yaay te nga war koo dimbali doon taawam. Mhm. xale bu wéroon rek damay dem liggéey waaye loolu ñu ma laaj yoruma ko. yoruma ko moo tax feebar bi traîné ba heure bii tey musuma xalaat ne mën naa génn ci télé ñaan ndimbal ndax famille bi ma bokk moo tax. Mm-hmm. moo tax musuma bëgg génne sama bopp ci télé bi ndax am naa famille boo xam ne nag mën nañ ma dimbali waaye ñoom sax. musuma dem ci ñoom ne leen sama doom dafa feebar duñu sax xam li ngay dund xamuñu ko dinañ ko xam à travers émission bi ndax nag euh, ni mu ko waxee rek euh, bëggul benn yoon toog ci tele ndax nag euh, ku nekk xam nga fi nga jóge mm. mais da ngay toll foo xam ne doom moo la mën a def loolu ne yaay moo la mën a def loolu ne mm. ba tax na rek li muy dund nii metti na amaana ñu bëri ñi ngi ci ay famem comme ni mu ko waxee blâmewul kenn ndax ñu bëri xamuñu li muy dund ndax ñu bëri ci famille buñ ko xamoon den ci jàpp mais nag euh, nit di nga toll liñ naan euh, gor gor rek lay doon te am na lenn loo xam ne boo koy dund ñu bëri doo bëgg ñu xam ko doomam lii moo ko dal pour képp koo xam ne rek yaa ngi koy xool xàmme ko muy Omar Thiam doomam la ma nga dund juddoo fële ca Mauritanie xale bu mu juddoo indaalewul làmmiñ làmmiñ bi dafa des si put bi loolu médecine moo ko mën a wone euh, xol bi dafa rëy xale bi dafa pulmonaire deru biir bi dafa am problème maanaam li nekk ci xale bi moo bëri et pourtant am na joie de vivre yëgul li xew mi ngi foo mi ngi ree mi ngi def lépp lenn rek la mën a lekk la mën a naan muy meew meew bu koy naan dañ koy tëddal mu naan ko ndox bu koy jàllale dañ koy tëddal mu jàllale ko mënul jàllale dara toog sinon day génnaat ci bakkan bi lii moo dal ki nga xam ne rek mooy ndey cooro mbay mu ànd ci ngor lool lool lool ndax doonoon jàmbaar nag nekk fële ci fi nga xam ne mooy Mauritanie di liggéey di dimbale ay waajuram yóbbaale ay sëram macha allah di ci génn lool lool waaye nag dema dema dema dema dem ba euh, lii nii yóbbu na lu bari bari peut-être tamit euh, paj mi ci la ndax xale bi ba mujj doo takk bu doon xam nañu ne làmmiñ bi génnul amaana peut-être solution mën na am waaye dem na ba am 3 bay yegg 6 mois euh, fële ca Mauritanie te xamuñu ne làmmiñ bi génnul bañ ko xamee lañ ko ne dawal Sénégal ndax ñooñu dàq faj muy lu doy waar lu doy waar lu doy waar muy wane rek ne natt buy ñëw euh, day xaw a jaxasoo yenn saay day xaw a bëri ba tax na mbokk yi ci loolu la ñuy jaar dem seetaani témoignage bi des léegi léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur yéeme na trop. Omar Mbaye li ñuy moom judd na judd waale feebar yaayam nekk ak moom Mauritanie faj faj ba sonn amul solution mu ñëw Sénégal. mu ñëwee tam topp ay fajam Fann Roi Baudouin hôpital bu mu dégg mën na faj rek dem na fa. yaayam bi bi bi bi bi Omar di juddu yaayam namul woon dara waaye Omar feebaram lekk na alalu yaayam ba jeex. barki dem dañ day jël télé bi jaay na lal beeg ak matériel yëpp yaayam amoon jaay na ko ndax Omar Omar ñaari fan ñett mu ngi hôpital toog 5 jours dem hôpital man damay woote chaque jour nday ana Omar mun ma Omar de mu ngi nii ana Omar bunu ma Omar mu ngi hôpital daan entré Omar mënul lekk dara lu dul meew. bi may jógee Mauritanie bi ñëw bi ñu koy njëkk a gis bés boobu naka la mel. yoo doy na waar doy na waar lool lool lool. image boobu sax mënuma ko xool. loolu moom doy na waar man ba ma gisee xale bi damaa mel ni kun damay nelaw affaire bi dafa may def kaa xale bu juddu amul làmmiñ munul lekk dara xoola ko juddu ko lu toll ak une semaine yàlla dara mënul lekk dara mënul jàll sa gémmiñ bala ñu trouvé bi ma bi mu war a nàmp yàgg na parce que làmmiñ bi xale bu amul làmmiñ làmmiñ mooy doole ngay nàmp bu amul làmmiñ doo nàmp moo waral mënul lekk dara loolu meew kese moom buñ ko jox daawul baax. déedéet daawul baax dangay hmm. kii di ko may muy nàmp ndànk ndànk te mënul nàmp parce que làmmiñ mooy nàmp. am danga koy tëddal rek waaw même lekk bu dee toog sax du lekk même nàmp biberon bi buy nàmp du toog. day tëdd te bu toogee day jaar ci bakkeen yi génnaat. Euh, yàggul rek yàggul matagul sax deux mois. Omar dafa xëy yaram bi tàng jër muy wàccu di wàcc di wàcc ba mënatul wàccu dara ndax ma lekkul lu mu mën a wàccu ma ne yaayam teen ko yóbbu hôpital mu ne damay xaar papaam yónnee ma far yàlla papaam yónneewul xaalis parce que mënu ko jot téléphone yëpp papaam mu ngi tamit mu dem hôpital Roi Baudouin bi mu yeggee mu ni leen man dama indi sama doom mais indiwuma xaalis ñu laaj ko ticket 5000 pour doom ji mu ni ko moom indiwul dara léegi xale bi. day jékki-jékki rek fat ci lañ ni ko biñ ko xoolee ñoom roibare lañ ni ko xale bi kër bi moo màgg kër bi moo ko ëpp ba pare dafa am cardiaque yaayam nekk foofu di jooy du yuuxu ma ne ko lii jooy du ko faj tegal lépp ci loxo yàlla rek bu ko yàlla waree saafara day deñ muy jàmbaar loolu nag jàmbaar papaam jeexal na yaayam jeexal na wallaahi azim papaam bu yorul xaalis sax du nangoo jooy yaayam téléphone ñaari fan la meew bi am ñaari fan Omar lu mu bëgg bu ma mën dibiteri bi sax ñu dibi la bëgg fekk yaayam yenn mille francs sax da koy jëndal dibi na ko macc lu mënu ko macc yaayam da ko tëcc tëcc ba mu mooy sexal ko tuuti la ci lekk parce que fii mooy jàllale fii mënul jàll dafa war na làmmiñ bi ah ñu jàppale yaayam jàppale Omar te yàlla rek tax ñu dimbali ko ndax li muy dund metti na ñu màgg moom loolu rek mooy problème am xol bi làmmi bi day gën a màgg mënul toog toog di lekk naan ndox rek mënu ko toog day tëdd nga toqalal ko mu naan ku ko jàppale te yàlla rek tax jërëjëf kon nag ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu wéyal ba tey rek ak ki nga xam ne rek euh, mooy soxna si toog mu ànd ak njàkkare lool lool lu ci bari mu koy dund en silence te kenn xamalu ko ko wàllu gor la ba tax na rek euh, Ndeye Coro dama lay bàyyi rek euh, nga libal ñu ci bés yi nga xam ne bokk na ci bés yi nga xam ne ci nga gën a waaru ci sa Omar mi. loolu kañ Omar kañ li ma waar ci moom chaque jour lay doon. Mhm. mais ñàkkul bés boo xam ne amaana moo la gën a frappé muy ban ak ban ak benn ci bés yi. waaw li ma gën a frappé mooy danoo toog fii benn guddi mu crise gisuma kenn ku ma ko mën a yóbbul man ak sama benn xarit. Mhm. ñoo koy awante ba roi Badowe te doon koo dox. da ko. doon koo dox. dañ koo dox ba àgg foofu. roi Badowe. waaw ndax la ñàkk paas. ñàkk paas. roi Badowe tamit di hôpital boo xam ni hôpital bu bëri yërmande la. dem naa fa juróomi yoon yoo xam ni bu ci nekk dañ ma wax demal dagg ticket 5000 barki arxuraan su ma leen waxee aw ko rek dañuy jël xale bi faj ko. muy jour boobu nga xam ne dafa crise fii xaaju guddi ma yóbbu ko jour boobu dagguma ticket. ba ngay dem amoo paas waxatuma la dagg ticket. ko amul paas kañ doo dagg ticket waaye bu ma eggee wax ko médecin bi damaa xamal carrément ne ma yéen ñu jur xale yu mel nii sa dañ leen a war a dimbali ci dagg ticket bi daal di may jox garab ne ma yor nga loo jëndee garab yi ma ne ko sama wéef am na lu ci nekkoon mu daal di dugg foofu noonu génne yi ciy dem ma dem jënd li ma am ñu defal ma faj ma. wax dëgg yàlla loolu moom dund naa muy loo xam ne man xar yoon bi yëpp dama ko jooy Roi Baudouin fii laa commencé jooy ba Roi Baudouin mhm. ndax maa ngi xalaat sama doom bi moom dina yoon bi gudd na gudd boo xam ne su ma amoon laaf damay naaw ndax bi ma téyee xale bi ni muy def man ma doxoog moom arrangé wu ma muy lu metti nag waaye nag dama ci sant sama raq ji ma dëkkal ndax fu ma jugee muy daba mhm. mu jug sol yére ànd ak man daba mbay waaw mhm. koñ bi nag kenn seetaanu ma ñoom Mouhamed ñoom Danna ñoom Tam xale góor koñ bi kenn seetaanu ma ku ma gis rek da may ñeewantal ndax sama doom bi ma yor te ñëpp ma bëgg a dimbali. Mhm. sax Mbacke jël na sama doom bi yóbbul ma ko fii ba wokkaam ci moyenu boppam koñ bi daal ñëpp may dimbali wax dëgg yàlla mbay si njaay du ma toog une semaine jabaram génnewut ay saagu yére jox Omar. Mhm. koñ bi ñëpp may dimbali. Mhm. waaye nag yàlla dafa dogal ku yor ku feebar moo neexut a dimbali ndax loo ko mënti defal jox mu def ko ci du feeñ loo ko jox mu def ko ci te tey ndimbalu xale bi mhm. euh, ay meew ñu ngi koy ñaana ñu ngi ñaan ay meew waaw mi ngi utiliser li nga xam ne rek euh, mooy meew pharmacie yi meew bi sax moom a euh. gën a sonal mhm. ndax meew bi dama ko daan jënd mu ci nàmp cinq jours waaye xam nga kii mag la léegi meew bu ma jënd su ma ko jëndee tey ci guddi ginnaaw suba ci guddi meew bi day jeex ci cinq mille yu manqué ci cinq mille yu manqué meew bi moom ku ma ci mën a dimbali moom pour les l'instant moom a gën a intéressé ndimbal bi tamit laajuma ci xaalis lu ma nit nar a dimbale nañ ma ko fajal sama doom ko ko mu wér mhm. ndax loolu moom a gën a intéressé mooy li ñuy wax rek euh, amaana tey nit mun na la jox benn deux cent mille trois cent mille mu jeexaat si saa si waaw ñuy ñaan ku ñu jàppale ci xale bi xale bi xol bi dafa rëy dañ ko war a xale bi làmmiñ bi génnul mm. gis ngeen gémmiñ bi nañ ko ubbee amul dara mm. dañ ko war a soit je sais pas parce que bugguma ci wax lu ma maîtriser wul làmmiñ bi xamuñu ndax dafa nekk fii ci boli bi xamuñu naka la demee mais làmmiñ bi génnul ci gémmiñ bi maanaam noonu la juddoo képp ku ko mën a jàppale ci loolu mu jël euh, yaayam ni mu wax rek malformation bi du problème. Hmm. xale bi am na joie de vivre yëgul loolu lépp yëgul loolu mais xol bi ak làmmiñ bi ak infection pulmonaire bi mu am moo ko sonal. mooy waral muy crise kon hmm. képp ku ñu ci jàppale ñu jël. képp ku ci jàppale ñu jël. ku ma ci jàppale ma jël de. Hmm. ku ma ci jàppale te yàlla tax. boo koy yóbbu yenn saa nga dugg kaar. li may dox bëri na li may dox li ma koy yóbbu hôpital dox. war na alxuraanu karim moo ëpp lu may dugg oto talkine naa xanaa lu toll ak sept yoo xam ne damay dox su may dem dama wax sama yaay bu ma topp bàyyi ma dem ndax damay dox. par des fois sama raq bu góor bi moo may jox cent franc su ma ko paasee ba bunt Pikine damay dox te Dakar fii koo kar na ko yóbbaale ma dalay ree ci sa comportement lan lay yóbbaale te ku ñàkk du neex a dimbali. du neex a yóbbaale. loolu moom ma gën a sonal. loolu la metti na metti na euh, dama lay bàyyi rek euh, Ndeye Thioro nga daal di tàggatoo. waaye tamit euh, wax ñu rek ci li nga xam ne rek euh, mooy euh, li ngay dund muy lii la gën a sonal ndax nag foog ñu wax ko jooy nga ko jooy ko jooy ba mun a toog ko jooy ah. muy kàddu ji nga xam ne sa yaay ji la koy wax moom bugg ko ah. ndax fu mu toll ma est-ce xale bi mën na lekk man bu mënoon lekk rek ma am yaakaar mais ñax mën lekk bi moo tax may wax ne bu mu ci teg yaakaaram ndax gis na ni nga tefee xale bi si sa ah. xol naka nag loo ñuy expliqué ci loolu laataa ngay tàggatoo waaw man xale bi sax man wax dëgg yàlla wékku ma ci sama yaakaar ndax damay tëdd ba guddi ma jug tiim ko di xalaat kañ lay dee ak bu dee dee fan la may fekk man xale bi rek moomu fi dëj sama yaay danaa ma bàyyi ko fi nga dem liggéey waaye mënu ma ko fi bàyyi liggéey ndax sama xel du dal waaw sama xel du dal su ma ko fi bàyyee waaye nit bu lekkut naanut ñu ne la kii carrément bu mu lekk. nga ne bu lekkee ceeb da ngay obligé. bu lekkee ceeb bu lekkee ceeb dama koy gis day tëb mel ne luy yuqeel. su ma dugalee sama loxo da koy wàcc ba mu set bi ma yóbbu hôpital dañ ne ma bu ko jox ceeb boo ko joxee ceeb bu dee yow yaa ko rey. Hmm? ndax làmmiñ bu koy travailler pour mu yëy ko amu ko mënu koo lekk mënu koo wara lu bari sax ci biir gémmiñ gi bu ma ko ubbee damay fekk ceeb da ci saañu ba fees ndax du am lu ko puus mu génn. Ah. man maay mu dugal sama loxo xoos ceeb bi yëpp génne ko raxas ko waaye doo mën a lekk sa doom di la xool. te doo ko jox bàyyi ko ko jox da di ko ko jox. ah man de bu ma lekkee mu xool ma wax dëgg yàlla dama koy may su ma ko dee may génne ko sax dinaa ko may ndax ngay lekk sa doom di la xool loolu neexul. sa xol moo la ko doon lan ngay tàggoo ni ñuy maa ngi ñaan képp koo xam ne mën na jàpp ci feebar bi ak meewam mu jàpp ci te yàlla tax man mii ñaan gënalu ma. su ma sañoon du ma toog fii di ñaan su ma sañoon ci ñuy maye laay bokk waaye yàlla moo ko dogalee nii. Mm-hmm. may ñaan képp koo xam ne mën nga ma ci dimbali te yàlla tax ba sama Seydina Omar mii tane man loolu rek laa bëgg nañ ma ci jàppale te yàlla tax lañ ko tuddee waaw hôpital lañ ko tuddee man Omar ngénteem mag lépp dara fekkuma fa lépp hôpital la ma fekk mhm. ndax bi mu juddoo laa ko yóbbu lépp hôpital la ma fekk waaw wax dëgg yàlla di gërëm sama jëkkër nag bu baax ndax moom mi jur doomam tuddee ko sama papa deseeloo ak man dara. <laughs> nit am na fi doom bu am laago du benn du ñaar sa jëkkër. bala wala moom musul daw mm-hmm. néew doole da lay jooy waaye mosul daw xale bi moo ko gënal bépp doomam bu mu jur te taxawu na ko ni ni taxawoo doom lu mu daw def na ko ci xale bi ku feebar nag li may wax moo neexut a dimbali moo ma dal rek mm-hmm. waaye dawul ay responsabilité am ci dara mm-hmm. waaw euh, ma bàyyi la nga joxe numéro téléphone boo xam ne ku ko bëgg a jàppale muy euh, ku ko bëgg a envoyé xaalis ku ko bëgg a envoyé waaw sama numéro mi ngi nekk 76 250 40 93. 76 250. 40 93. Mhm. mooy sama numéro téléphone. Mhm. loolu lay numéro bi kon nag eh, képp koo xam ne rek bëgg nga ko jàppale mën ngaa woote ci numéro boobu daal jàppale suñu doom bi comme niñ leen ko waxee ci njalbeen bi dafa doon xale boo xam ne dafa juddu làmmiñ bi eh, xaw ma dafa génnul xaw ma dafa amul làmmiñ munuñu ci sori lool lool lool ndax nag wu ñu domaine boobu. li ci am leneen mooy maanaam dafa am problème cardiaque xol bi dafa ngande par rapport ak âge leneen li ci tegu mooy dafa am infection pulmonaire ah euh, poumon yi dañoo am infection muy ah. lu doy waa te tamit nag am na li nga xam ne mooy euh, problème mu derme maanaam po bi am na problème euh, ndax nag dafa feeñ sax si biir bi ni ah. mu def yëpp loolu yëpp doon ay problème yoo xam ne mu koy dund yaayam nag di ko dund ak moom am ci dignité lool lool koy ñaanal képp koo xam ne rek mën nga ko la xeexul dara muy meew mu couche surtout nag meew meew pharmaceutique soxla na ko trop trop trop ndax xale bi pot bi nga xam ne day jar cinq mille manqué da koy nàmp ci trois jours mois de trois jours ndax loolu kese la am amul leneen lu muy lekk du jàllale leneen trois ans et demi la am âge euh, gis ngeen ko mu ngi euh, am euh, gaieté mi ngi am joie de vivre parce que xamul li xew eh. neñ leen bàyyi rek ñu tàggatoo ndax nag balaa xol yi di tooy doy na waa trop trop trop ñu jaajëfal bu baax ñi ci àndaloon ku ci mel ni Souleymane si ak Papa Diop ci wàllu cadrage bi Perlo ci wàllu logistique bi Papis Mbaye production ak ñi ci ginnaaw yëpp Lamine Mbeng ci wàllu montage ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci di jaajëfal ñi nga teewlu di jéggalu bu baax a baax ndax des fois ñu indi loo xam ne dina nakare seetaan lool lool lool waaye à chaque fois damay faral di wax ne yow mi koy seetaan ni mu diis diis diis yow ki koy dundu ci moom lay gën a metti te nag nit la ngay nit te nag euh, mi ngi noonu suñu borom teg ko ko te àndul ak onko benn yoon fi amaani laa jaa ngeen jëf lañ leen di wax di lañ jox dig daje ci beneen numéro 7 voix du sur la 7 TV pour que la télé soit un plaisir merci beaucoup